départ chauffeur ba tëppeelu ci biir ndox mi bàyyi bato bi muy dem xamatuñu fu mu jëm looloo ma tiital te moo tiital askan wépp li ma xam daal mooy ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla indi jàmm ci dëkk bi yal yàlla yàlla wàcce jàmm ci réew mi lii fi nekk fan yii di yëngu dug may dug njëkk te teguwul fenn yàlla nañ ci yàlla musal nag musal askanu Sénégal sàmmal sunu gaal gi ba mu teer bon port man àlaa njuga daal lii laa ci xam waaw macha amoon conseil man bu ma amoon conseil bu may joxe dama koy jox les gouvernants ñi yilif réew mi laa koy jox ñu leen ñu tegg seen tànk wàcce seeni i mbir benn mbir rek lañu am bëgg koo étendre te lañ bëgg suuxal gaal gi te ñëpp ko xam fi mu ne Ousmane ñu ngi commencé ca ba ñu jàppee Khalifa sàll bañ jàppee Karim Wade daal joxañ nag tuuma Ousmane mu sell mii sonk kundaa mii ne nañ ko faagaagal ndax lan bu jotee ñu des ci géej gu ñëw kenn te yàlla bindewul noonu àddina bi man joti tamalo kenn mënu noon nax ñun waa senegaal li ñu xam mooy nañu yaatal géew bi kilifa nag booy falu di bëgg a falu bàyyil sa xel li ngay wax ba boo demee ba falu bàyyi ca xel dundu koog askan wi bu jotee nga def troisième mandat bi ngeen may bëgg a laaj maa leen ciy jëkk a wax il n'a pas droit de troisième de mandat dafa war a takki bagage sam 2024 dem organiser ay élections yu transparente ñi ko bëgg tey laaj réew mi joŋante ku yàlla jox nga jël man nag maa nga féete fee ca Ousmane Sonko lu may nëbbu man ku may ragalati à l'âge de presque quatre-vingts ans yu manqué deux ans ku may làqu ak ku may nëbbu tey j'ai fait tout dans le Sénégal man lu may proposé ak lu may mënuma dem du ma transhumé ci àddina ba ma Ousmane Sonko yàpp moo ko naree war yàlla naa faatu. papa déglu Ba. Amadou Ba man. mel na premier ministre. yi muy wax noonu waxi ko daanu ci saret la. nit ki bu xasee ba far ñu ne la yaa yilif réew mi tey ginnaaw président de la république yaa fi ne. yaay ndawam yaay loxoom yaay tànkam yaay léppam. far dalaa waratul ndax askan wi nga fi war a nekkal. kenn ku nekk njub nga ànd ci ak moom. ku ne waxu far la wax démb. waaw ah kay nëbbuwul. nii ma ne faa nga ne Ousmane laa faral moom noonu la def te waru ko. Macky la faral ba ñëpp xam ko te waru ko. li ko war mooy mu transparence taxaw ci digg bi. diriger réew mi teg ko ci yoon. biñ ko laajee ci troisième mandat la mu wax xam nga ni waxi far la. liñ ko laaj lépp amul lenn lenn lenn lu ci mën a jàppe lu dul nekk dafa far te nëbbuwul. un petit de la convocation avec la justice ñu ngi ñaan daal on les avec la justice faire son travail suñ demee ne ba nga xam ni mbir mi war naa yegg fenn fii dafa jot pour kilifa diine yi di ah oui fàtte woon ko voilà maintenant il faut que les autorités religieuses en parlent de ce pays là ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale honoré wul Sénégal honoré wul képp ku fi nekk Sénégal en français il faut que la violence termine dans ce pays si les vagabonds de la rue font la violence les députés à l'Assemblée nationale font la violence c'est pas normal qu'on laisse la justice nag faire son travail dans xam ni tout le monde savent que ce pays-là, c'est un pays de droit et de justice. la question du troisième mandat Troisième mandat, ce n'est pas normal. Troisième mandat, c'est qui va dire que ce pas normal qu'un individu fait, combien Plus de deux mandats constitutifs dans ce pays-là. Qu'il le respecte. Que les gens en paix. Les élections tout le monde, vous votez, vous connaissez. Que la paix règne dans le Sénégal. Merci.